kaw bu ñu leen jàpput yóbbu tey jii yéenekaay bi nee na li bu dalee ci kaw Sénégal bu nu seet fu sori nan xam ne la xewoon ca weeru juin ba la nu weesu moo waral ONU séppinu ci kuréel gi saytu àq ak yelleefu doomu aadama booba jamono ca kasob jigéen ña ca Liberté 6 ay kuréeli politique ak société civile bi di ca wone seenuk njàqare ab communiqué la nu fësal démba ñaawlu jafe-jafe ya jigéen ña ñu tëj ca camp pénal te mu tax ñu sumb gerewub xiifal nekkin wu bon ak ñàkk àtte gi yéenekaay bi nee na moo leen naqari waral kuréel yooye di sàkku ñu taxaw ci seeni mbir ba ñu mën a génn ci yooye la jafe-jafe jafe-jafe yooye libération xëy na dinu ko yeggee naan ñu Mati Sarr ñaak Falla Fleur ña nga ca guddi gu bot setagul ndax nekkin wu bon ca camp pénal ca Ziguinchor libération nee na ñu fa tëj di ay détenu politique ñeneen ñi di ay élew sumb nañu gerewu xiifal ngir ñaawlu anam ga ñu leen téewee waaye itam téeganu leen tee te àttewun leen gannaaw weeru yàgg yu nu ko tëj te àttewunu ko nit dof génn na kaso waaye libération mi ni ko yëgal nee na taxu ko moom boppam noonu ndax mi ngi ci contrôle judiciaire juge si fay ma agent judiciaire de l'état récusé woon keroog ca àtteb Ousmane Sonko ba bés bi nee na àllarba ji dana leer ndax ca la ñuy yóbbu mbir ma ca kanam cour d'appel appel booba nag kaa bi nee na mën naa soppi lu baree bari fekk ëllëg yéenekaay bi nee na Sonko moom ma ngay xaar notification juge ba loolaa ko tee jële ay fiche de parrainage am Sud Quotidien des ca boobale verdict jox ci kàddu Jibril ñi nga njaga si laa di ay expert électoraux ñaari boroom jàpp jàngat yu baree bari ci dogalub tribunal bu Sigicoor ñeel seppi gi nu seppi Ousmane Sonko ci liste électorale yi moom Ousmane Sonko le quotidien gis na ne patient gënu ko spécial maanaam malade yee ca hôpital principal bu Ndakaaru yéene bi nee na kenn du ci Sonko juróom-ñaar fukki fan ak ñaar mi ngi nii mu tëdd ca booba lépp l'hôpital bés bu jot ñu ñoqi ci alalu askan wi fanweeri junni def ci Ousmane Sonko teewut journalu Madiambal Diagne bi nee na état di nguur gi mi ngi gëmm bëtam ci loola lépp gëmm bëtam it ci delloo ko ca kasob Sébikotane waxagun lu ca jëm bam noppee ca loola le quotidien wax na it ci tàqalikoo gi dox diggante ak taxawu ca assemblée nationale nenu xalifa sàll ngay tàccu ay députéem moom xalifa sàll ci xët gu njëkku vox populi ñu ngi ñooy xamal ne ànd naak députéem yi yeeweeku ci yeewi askan wi te ma nga leen di jàppale itam firnde gi mooy Abba Mbaye ca boppam ma ngay nittali na xalifa sàll def ba ñu génn ci booba lépp coalition ndax nee seen jiit moo leen sant ñu tekki seen ndombal tànk doon ay député non inscrit moom xalifa sàll nag Walf Quotidien ba mu la mu gis mooy xalifa ngay dox cay nen feeg ñuy xam ndax dana tojam déet 24 heures moom ma nga ñuy coalition yi amut fukki député ak ñett mbaa ñeenti téeméer ak ñaar fukk ci ay maire mbaa président conseil départementaux it ci nen lañu toog ndax parrainage citoyen bi moo leen jaaxal la ko waral mooy ñi mën a def parrainage des élus dañu faa wàcc loolee di xëccoog ñoom parrainage citoyen yi tax Pape Djibril Fall di sàkku ci askan wi ñi nekk fii ak ca bitim réew ñu ràññee coalition yi am député yu doy mbaa ay maire ngir am parrainage des élus bañ leen a parrainer ndax jubluwuñu lenn ci wutum parrainage citoyen gi lu dul sabotage Abdourahmane yaakaar ne wut parrainage citoyen jubluwu ca lenn lu dul xañ yenn candidat opposition bi ñu am ay parrain waral yéene kaay bi ne ñoo ngi jëm ci guddi gu bët setagul ak coowal parrainage gi coowit ku mayewul léegi mu juddu diggante Barthélémy Diaz ak concessionnaire yi l'info mi ni ko xamal moo xëy yeggee ñu dànqaafuy maire bu ndakaaru ne képp kuy liggéeyati ci Dakar soxla toj ay yoon boo ca noppee nanga ko defar lu ko mooy Barthélémy nee na loo gas suul daanu gas sulli ko bu jaree dem ci yoon it daanu ca dem ak yow yor dellu si ndakaaru xool mbiram Mamadou Dia ak Ousmane Sonko gis ni daal ñoom ñëpp complot d'état daa daal ci seen kaw tax yoor yoor bi jàppee leen ñett ñuy màndargaal moom sa bopp gu Afrique yéene kaay bi nee na système bi ci boppam moo ragal coppite ragalit koo xam ne day ñëw di jubal ba xañ leen mbir yu bakkane yañ doon am te Ousmane Sonko ci la bokk waaye yéene kaay bi nee na teewut askan wi ko gëm moom ñoo ngi wéy di ko xaar te gëm ne dana dikk Mamadou Moustapha Ba booba jamono xaarut sax nguurug Macky Sall gi jeex ma ngay méngale jamonoy Abdoulaye Wade ak Macky Sall moom ministre budget mu ne Macky Sall ni mu nar a bàyyee Sénégal 2024 moo gën fuuf na ko Abdoulaye Wade bàyyee woon 2012 ci le témoin ma ngay joxe firnde ci juróom-ñaar téeméeri milliards di recette fiscale yi nuy xaar ci atum 2024 at mooma nee bu nu ko méngaleeg at bi Abdoulaye Wade di fegal ci réew mi Sénégal ci la gën a wér ci wàllu koom ña wopp ne ca l'hôpital te fajuñu leen Walf Quotidien ñoom la xëy di waxal ne malade yu baree bare danu leen bàyyeek bàyyeeg seenuk ñu wéet ca lool Amadou Ba moom wéeru gum wéeru ci Macky Sall la war a ba l'observateur moo ni gisee ne dese naa moom boppam taxawaayam ci politique gi des na ni mu teeyee ci mbir yi yéene kaay bi nee na gënut ci moom waral l'observateur dinu wax naka la amadu Ba war a tàqalikoo taqandeeru Macky Sall jël yoonu boppam te du ko tee sukkandiku ci bilangu Macky Sall amadu Ba it wor ganu koy njortal l'observateur nee na lu diis ci kawam la ba jamono ci booba lépp yéene kaay Kalidou jàlloo di dellu si ci delloom gi ci parti démocratique sénégalais li nu waxtaan yam sekk Karim Wade waxit ci ñibbi si Karim Wade ci ndakaaru génération du concret ak yaatal gi nu ko bëgg yaatal Amadou Ba di yaatal ci ndakaaru kilifa diine yeeg kilifa aada yi direct news nii la ñu yeggee tournée bi mu tàmbali ci ndakaaru moom candidat bennoo bokk yaakaar bi booba jamono réew mi quotidien di ñu yëgal ne ay acteur économique ñoo bennoo sumbu ab pétition seen càkkuteef mooy bato yi doon daw diggante ndakaaru ak Sigicoor dellu si réew mi quotidien yi dellu si ca jongante wa amoon démb diggante sénégal ak cameroun nañu sunu gaynde yee mujjee daan benn bal ci dara le soleil ak record ne kon gaynde yi jat na nuyu cameroun waaye enquête mi gis ne champion d'Afrique yi taxaw nañu taxawaay wo war sëgg na ci li Aliou Cissé teg gis